nañu mbégte di la dalal ci plateau bi. waaw soxna Aïssa ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di sant euh, Serigne Touba di sant mboolem Sénégalais yëpp ndax dañuy topp émission bi euh, di ñaan yàlla defal leen jàmm ñi ci réew mi ak bitim réew di nuyu mbooleem xalifa généraux yëpp di ci di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ak. Euh, boo dem xalifa yi sénéro yëpp rek maa ngi leen di ñaanal jàmm dalal ak jàmm tey secret yi ci lan lay aaju waaw mel ni gars yi dañoo nekk ci événement tabaski bëgg bayra nga xam ne bari na loo xam ne nit ki da koy liggéey bëgg ci faw mu am ci bayra ngir bëgg cee egg fi ci bëgg egg moo xam jaaykat bi la wala mbëru làmb bi wala politicien bi wala waykat bi ku mu ci mën a doon rek day bëgg a bay ñu koy sàkku léegi nag euh, li ma leen di njëkk a wax bala ma leen a jox bayra yi nga xam ne indi naa leen ko tey ci alxuraan moom mooy bayra bala nga koo am ngaa war a am kaaraange ba pare mhm. na ci bayra yoo xamante ne day laaj am ab aas waaye am na ci yoo xam ne bala ngaa egg 40 war nga ko am waaye bala nga ko amit war na laa wóor ni am nga loo xamante ni dana mën a fekk wax ji ak làmmiñ ji waaw léegi nag suratul ankabooti suratul ankabooti képp koo xam ne dangaa bëgg a bàyyi la nga bind ko ba mu jeex nga def ko téere takk ko ci seen ndigg faw di nga am bayra maanaam faaw nit ñi di la tudd yow mi nga xam ne dangaa bëgg bayra defar loolu képp koo xam ne dafa bëgg wéttalu nit ñi ak alal wala ngay jaay kër wala ngay jaay oto masalan wala ngay jaay sax. wala ngay jaay ndékki lu mën a doon ci mbedd bi mhm. ba ci ñuy jaay xar sax. Mm. soo bindee suma afidu min xaysu afada naasu mi ngi surtu baqara nga bind ko 111 moom rek ngay baam suma afidu mun xaysu afada naasu ba muy 111. nga jël ko lem ko ba mu sew nga sox ko ci yaxum nag bu fekkee da nga yaay kër boo ko suulee ci kër ga faaw mu jar diggante bu gàtt kër gi jar bu fekkee da ngay jaay oto boo ko defee ci biir oto bi balaa yàgg oto ba dana jar bu fekkee da ngay jaay xar nag danga koy def euh, téere ba mu sew nga wut dara ci yaxu nag ëw ko ko nga takkal ko ko téere baat xar bi day daal di jar ci changé. bu dee da ngay jaay ndékki nag. bu dee da jaay ndékki. su euh, suma afidu min xaysu afada naasu da nga koy bind téeméeri yoon bu fekkee da nga yor taabal téeméeri yoon nga koy bind suul ko ca fa ngay jaayee. soo jàngul nag mën nga mën mën nga ko bindul. mën nga ko bindal ñu bindal la ko bu ko defee da koy def ci buntu place bi boo ko defee ci buntu place bi maanaam place ba day fees day lekki nit waaw. bu dee nit ki day jaay kër. Mhm. mu bind ko mhm. suul ko ci kër gi mhm. kër ga jar. mbaa ki jënd kër gi du ko jaayaat. <laughs> non du ko jaayaat. xam nga lu tax ko. xam nga lu tax maanaam moom day xëcc ak ngerte. bu fekkee nit ki dafa jënd kër gi mu ne ca biir kër ga maanaam kër ga day doon kër goo xamante ne kër ga du wéet parce que moom day xëcc ay nit même surtout hijri soo ko bindee ba mu jeex nga boole ko bopp tan nga yore magasin nga takk ko ci palaas bi mu tiim porte palaas bi. ni lësiye di xëccewe ji noonu lay xëcca nit ñi ñu ñëw ci place bi bu fekkee nit la koo xam te ni dafa bëgg nit ñi bëgg ko ba duñ ko gëmee maanaam góor ak jigéen mag ak ndaw bëgg ko sopp ko yéene ko tamit seen alal day bind surtout Mariama ñett yoon da koy bind bu njëkk bi da koy xooje ndoxu sam-sam mu naan ko moom rek bañ koo bokk ak kenn beneen bi ci topp mu xooj ko saafara sangoo ko moom rek beneen bi ci topp mu lem ko ba mu sew def ko ci biteel def ko ci bërëb ba mu nekk faw nit ñi dañ koy bëgg te it nit ñi duñ am ci moom sago. waaw man am naa ci question de foofu noonu nga wax noonu. parce que mm-hmm. bu fekkee da ngay am looy def. Mm-hmm. bu mu susciter nit ñi bëgg la ndax loolu diineen. Euh, nangu na ko nangu na ko. waaw waa ñëwul dara ñaan yàlla nit ñi bëgg la moo gën di ñaan yàlla nit ñi bañ la wala nit ñi duñ la sopp wàññiwul dara waaw ndax suñu borom dafa xam ne Euh, parce que bëgg bu bu àndul ak teyef lay doon parce que bu fekkee da ngay def loo xam ne moom mooy tax du du nit ki da lay bëgg du ànd ak sagoom mhm. euh, déjà c'est pas c'est pas naturel parce que amaana boo defuloon loolu nga def noonu. kenn du la bëgg du du la bëgg. Mhm. donc est-ce que foofu aussi euh, amul lu dénaturé loo xam ne yow dindi nga lu yàlla def foofu noonu au lieu que yow nga am taxawaay. buy mhm. tax ba nit ñi bëgg la. amuloo taxawaay boobu nga dem jëfandikoo dara ba nit ki nga xam ne amaana boo jëfandikoo loolu loolu du la bëgg ndax loolu aussi. dina waaw xam nga nit ki dafa warta bañ a bëgg nit ki nit ki warta bëgg bañ a bëgg nit ki. fekkee tegu nañ ci siraatal mustaqim ndax suñu borom dani waxtasimoo bi hablillahi jamii'an jullit yëpp dañoo war a booloo. jàpp ci buumu yàlla gi comme tabax ni mu tegaloo nga teg birig tegaat birig jullit noonu lañ war a tegaloo. kon boo ñaanee yàlla jaxasoog ñëpp. Mhm. loolu wàññiwul dara. ayca ñu wëyal secret li nga xam ne moo ñaaw daal mooy ñaari ñu bëggante wala ñuy ànd nga fexe leen tàqale. tàqale mhm. loolu moom dafa araam waaye ñaan ngir booloo wàññiwul dara bi ci tepp muy ki nga xam ne dafa bëgg siiw ca la muy liggéey comme nga doon jàngkat bëgg a siiw ci njàng mi ñu xam ni xam ni diw xasaay. wala ngay musicien bëgg cee siiw wala ngay politicien bëgg loo woote mu fees hmm. surtout samsu wa samsu wa duhaaha wal xamari xam nga wa samsu mooy hmm. jant hmm. wal xamar mooy weer suñu boroom mi ngi giñ ci jant bi topp gi mu topp weer wi léegi nag wa samsu am na wenn-neuf waaw waaw gu ne boo ko tijjee yow mi may déglu nga def ci sa tur ak ca la nga bëgg a siiw bu fekkee tailleur nga nga bind sa tur bind ci tailleur faw mu siiw ci bu fekkee politicien nga nga bind sa tur bind ci politicien faa mu siiw ci ak loo mën a doon boo noppee nga sangoo ko waaye ba nga ko sangoo danga nga koy booleeg lem loo ci def rek mu toll ak xorom ak suukar ak suufu marché ak suufu jàkk boo ko sangoo faw nit ñi topp la faw nit ñi bëgg la looy woote tamit faaw mu fees bi ci topp muy soxna Aïssa. Pape dafa am question. waaw si bi bon parce que si bëri na am na deux façons ah si négativement ak positivement ban façon siiw la si la du la ci wala siiw rek. maanaam da ngay siiw ca bu fekkee comme nit ki ñu koy tudd ñu ni diw mbërum làmb la. am tur daal. waaw comme ci làmb nga bëgg a siiw. surtout ñu xam ne mbërum làmb la que ñu ñuy tudd mbërum làmb aussi mun na négatif nga nekk mbërum làmb boo xamante ni su passe da ngay comédie wala leneen leneen bon loolu. waaw dafa am ñoo xamante ni ñoom budul bu budul bu dara ñoom ñoo bëgg di siiw ñoom ñoo bëgg ñoo bëgg siiw. kut ko kut. waaw dafa am ci ay. ak lu mënti arrivé. dafa am ci ay nitam ñoo xam dañoo bëgg siiw. ak lu mënti arrivé siiw ak lu mënti arrivé. ndax ñun ñi nga xam ne ñaan mooy suñu métier. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañu koy dañuy ñëw ci ñun di ko sàkku naan dañoo bëgg a siiw ci li ñuy def. Mm-hmm. ndax siiw ci mbir dana waral ngay liggéey doon ab tailleur nit tudd la foo nekkul wala nit dégg lañu lay tudd mu ne kooku de bëgg naa dem mu ñawal ma. wala mm-hmm. ngay jaay oto ñu xam ni kii parking sàngam moo ko moom nit ñi di la tudd am ko ni boole maa ngi moom ngir ma dem mu jaay ma oto loolu siiw moo ko waral. Mm-hmm. waaw. ayca ñu wéyal secret yi dese nañu juróomi simili nga xam n xale yi nga xam dañuy jàng te seen xel di naqari moo xam lu nu mën a jàng moo xam alxuraan la moo xam français la moo xam sax métier la nga di ko jàng te sa doom di ko jàng ba pare xelam naqari wasamaahi wa taarixi nga koy bindal ba mu jeex boole kook soow meewum xar saa xar muy nàmpal nga fexe ba am ci meew mi téere ba nga def ko saafara jël ci meewum xar mi boole ci xale bi di ko naan kaas wi suba ak kaas wi ngoon lu mu jàngati xam ko bu pare xel mi day neex dootu ko fàtteeti suratul iqra suratul xalaqi muy muy iqra bismi rabbika lazi xalaqa xalaqa linsaana min soo ko bindee ba mu jeex moom it nga boole kook reenu ngeer nga def ko saafara te ko foo xam ne asamaan see koy jiim bu defee xale bi bu xëyee di ci naan moom xel mu ñaw lay am xel mu neex lay am. dana ubbeeku. waaw xel mi day ubbeeku te du fàtte li muy jàng. ayca. bi nga xam ni moo ci mujj moo ci mujj. Mhm. muy xale yi nga xam ni dañuy wut bac. xale yi xale yi nga xam ne dañuy wut bag wala ñuy examen te bëgg a jiitu na leen bindal sóoratul faatiha benn yoon ak sóoratul xalaxi muy iqara benn yoon. ak wa rafaxnaa laka sikraka sept fois foofu rek nga yem ak wa rafaxnaa ma kaana aliyan